asalaamaaleykum wa rahmatullah man maa ngi tudd Oumou Khayri Nitte Youssouf bokk ci jotaay bi nga xamante ne mooy mbootaayu jigéenu Mauritanienne yi bokk gis-gis bii dañ koy célébrer comme nitu monde bi yëpp àddina bi yëpp dañ koy feete li tax ñu di ko feete nag dañuy jéem ndax ñu daw àq ak yelleefu jigéen ñi nga xamante ne dañ leen di noot te nootu jigéen lu doy waar la si ngir àddina bi suñu dëkk di Mauritanie nga xamante ne du dem ñuy des yeneen dëkk yi duñu ñoo toog tey jii ànd boole seen xel ak seen xalaat doon benn jéem ko fête waaye ci kaw fête bi nag ñu jël comme thème déedéet ci jigéen bi ñuy noot nootu jigéen dafa war a jeex ci réew mi war a jeex si àddina bi te ñun suñu taxawaay mooy ñu jéem a daw àq ak yelleefu bépp jigéen boo xamante ne ñu ngi lay noot ci wax noot la ci dóor noot la ci lépp loo xamante ne xeetu nootukaay la mais ci violation sexuelle ñu ngi koy daw ndax jigéen ñi boo suñu dëkk bi li mu am léegi ci ay violation dafa ñu ngi leen di noot si bépp xeet si biir taxi si biir oto yi si marché yi ci kër yi kenn xamul nu ñuy suñu doom yi mënatuñu génn jàngi ndax duñu jàngee seen xel yi dootul dal ñoom seen xel yi duñu dal même pour jéem a concentré wu seen njàng day doon problème ndax violation bi am moo tax ñu naan déet carton rouge ci lépp loo xamante ne violation la tey nag thème bi ñu jël dañ ko gën a sargale suñu équipe football yi nga xamante ne moo am ci suñu réew pour woon àddina bi lépp na Mauritanie doxul demul bay nekk ca gannaaw nekkul ca gannaaw réew yi nga xamante ne ñoo gën a développé pour ci mbiru football jigéen ñi nañu footballee ca beneen réew dinañ ko football te milieu sportif moom moo gën a baax ci li ñuy wax ne sensibilisation waxtaan ak jéem a xeex li nga xamante ne mooy li ñuy daw mooy ak ak élève doomu aadama surtout jigéen jigéen daal noot ba la bañ ñun ñëpp ñu ngi yëkkati suñu carton rouge ne daal nañu randu nañu moytu nañu bàyyi jigéen ñi ñuy noot ndax jigéen mooy doom ñun ñooy seeni lépp kon nag bu ñuy noot nañu dimbali li laay war a soli ci noot jigéen boobu wasalaam